asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi li ngeen gis noonu seen écran ay jaaru aqiiqa la jaaru aqiiqa yoo xam ne nag bokkut ak yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii senegal waaye dafa am koo xam ne suñu abonné yi la bokk daf ñuy seetaan te bu nekk euh, sa turki nga xam ne moo ma ko yónnee mooy yi ngeen gis nii yëpp wax dëgg yàlla mu nekk ay jaar yoo xam ne xaalis piir la ànd ak aqiiqa ginnaaw loolu itam jaaru yi dañ koy liggéey su turu nit ak turu ndax doomu aadama bu nekk ak jafe-jafeem yow mi nga xam ne bëgg nga jaaro bi doo yam rek si takku ko may da nga bëgg itam jaaro bi am lu la jëriñ bu fekkee ne si wàllu kaaraange la si wàllu ubbeekaay la si wàllu liggéey la si wàllu ut la si wàllu tawfiix la si wàllu bayra la lu mu mënti doon bu ko defee boobaa da ngay wax xam nga loolu nit ki concerné su boobaa sa tour lañ koy liggéey ak sa tur yaay bu fekkee ne nag da nga bëgg jaaro boo xam ne dañ koy liggéey su xaati mu raban wala mu sallas boo xam ne Eh, da nga bëgg digënté bu neex ci digënté yow ak sa borom kër wala ci digënté yow ak sa jabar wala ci digënté yow ak ki ngay bëgganteel su ko defee su boba itam lu leen di ko liggéeyal boobaa dañuy soxla ñaari mais nak ñi par kilo lañu jaay quoi kilo lañu jaay sey loolu dana ko xel insha allah eh, comme yalla dafa dogal nak yalla dana ñu jox secret hmm? bagg jaaro waaye nag bii da see raw macha allah ndax boo xoolee fa muy jógee la waaw nekkul lu ñuy falsifié jaaro bi xaalis piir lay doon te itam bu ñu koy liggéey itam danañ ko liggéeyee si sa tur wala si ni koy bëggee rek moo xam bu dee wàllu diggante la ñu xam ne ni koy liggéeyee bu fekkee ne tam si mbiru bopp la xam ne ni ñu koy liggéey te du yam itam ñu jox la jaaro bi rek nga dem ndaxte loolu du la jëriñ dara waaye dina ànd ak ay sunguf wala bain yooyu ngeen gis muy bouteille yooyu. bu ñu la joxee jaaro bi foog mu ànd ak moom ndax mu man lay jariñ ndaxte nit mënoo ko jël dara jox ko rek mu jël takk noonu te du ko mën a jëriñ te loolu boo xoolee sax daanaka du am benn njëriñ du ko mën a jëriñ lépp loo xam ne mu ngi si sant yi itam amaana mun na ko see ñàkk gis kon képp koo xam ne ittoo nga ko nag incha allah bi bëgg ñu liggéey la ko bi nga ñu yónnee message ci numéro bi di affiché ci écran bi incha allah rabbi dañ ci dimbalante ay yéen ndaxte ki nga xam ne moom ko yónnee euh, moom kat ku baax la rek dañu siiwur waaw yàlla dogal mu séddoo ko ak ñun waaye nag képp koo xam ne soxla na ko rek bu ñu jokkee dina xool naka la def ba mën a taw féexe si ñëpp ku si nekk mën cee jot ku si nekk mën cee am ndax nit ñi dañuy bëgg waaye yenn saa rek euh, hmm? pour waaye nag yàlla baax na yàlla dafa ñu taw féex ñun ñëpp yàlla aar ñu sàmm ñu faj ñu aaju si ziar ak si baatin yàlla aar ñu sàmm ñu yàlla dimbali ñu képp koo xam ne yaa ngi si jafe-jafe yàlla yàlla génnee si ñu nekk si biir néegu sëy yàlla neexal sëy yi ñu bëgg a sëy yàlla dogal ñu sëy ñu ñu ñi nga xam ne dañoo feebar yàlla wéral leen ñu ne si jafe-jafe yàlla génn leen si kon ñu ngi yem fi ba subaa jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa